war ndem jullit nga goor nga wala jigen lol moy lan fardul ayni ka ahkami salati wa taharati wa siyami wal hajji wa sakaati niki nanka ngay laabee lolou julit bu nek goor nga wala jigen farata la ci yow soko xamut da nga am bakkaat xam naka lañuy julé lolou julit bu nek daf la war goor la wala jigen julli bu yàqoo naka nga koy defaree lan moo ciy farata lan moo ci sunna lan mooy tax julli war ak yan sarta mooy tax julli wét parce que julli dafa am suruutu wujub ak suruutu saxa yooyu ku ko xamut tey góor wala jigéen tey jullit am nga bakkaat naka ngay xooree li koy yàq li koy defar jullit bu ko xamut tey góor tey jigéen am nga naka ngay xajee màkka naka ngay génne asaka yii mooy fardul ay ni loolu dafa war ci jullit bu nekk mu xam ko su fekkee nag jullit bi yalla dimbale na ko mu xam loolu bala bala waxtu shabaab ay di ñëw bu waxtu shabaab ñëwee rek dafay nekk ndaw loo xam ne li diine ji yaakaar ci moom li réew mi yaakaar ci moom danañ ko mën a am ci moom ndax yonent yi noonu la leen yaral defalee kulluhum arsalum ala rashi arbaina sana wa hadi xayatu sabab wax naa la léegi ne la shabab xaayati shabab muy arbaina sana ñoom ñëpp bi leen de yàlla yónne amul ci kenn koo xam ne ëpp nga ñeen fukki at suñ sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala nihayati arbaina sana ci la ko yàlla yónne ñi ci des ñëpp arsamullahu ma adna min zalika min sanawatihim mboolem yu ne ciy des nag comme ni ma la koy léegi am na koo xam ne bi ko yàlla wax yu muy yaxya alayhi salaatu wasalaam booba ñetti at لهذا ينبغي على الصباب أن يصلحوا دينهم ويعلوا هممهم لأنهم رجاء, رجاء الأمة في هذا الدين وفي مستقبل القريب قوتنا وصلاحتنا سببنا لولو تكون kon ndaw yi na ngeen fexe seen diina rafet na ngeen fexe ngeen hitte ndax yéenay yaakaaru réew mi yéen la réew mi yaakaar xeet wi yéen lañ yaakaar yéen la diina jihit yaakaar ndax mag ñi léegi ñu dem léegi mag ñi dem su fekkee ndaw yi baaxut kon diina ji du mën a baax su fekkee ndaw yi baaxut kon réew mi du mën a baax ci góor ak jigéen nag kon dooley diine ji ak dooley réew mi yépp mung ci ndaw yi ngannaay li diina am ak ngannaay li réew mi am moy ndaw antum antum shabab wa shabab antum quwwatu diin wa quwatu dawla yina doole réew mi yina nek hit it diina ji لذلك لذلك لما أدرك أعضاؤنا istaqnaw bi sabab looloo tax nooni di nooni lislaam ak ñi nga xam ne ñooy wes bi nga xam ne ñooy nooni suñ noon yi biñ xamee ne suñ ngànnaay yépp mu ci ndaw yi ñoom looloo tax biñ ñëwee ndaw ñi lañ hittihoo gis nga wes bi mooy xarb bi biñ ñëwee ñow ndaw yi lañ hittihoo ngir lan li yudiu alayna na ngir lan ñu réeral ndaw yi ba nga xam ne dootuñ am diina dootuñ am jikko yu rafet dootuñ am kersa dootuñ am axlaaq amida ñoom liñ itteewu rek mooy ndaw yi pour fexe dugg ci ñoom yàq seen jikko yi loolu def nañ ci lu rëy ba nga xam ne fi mu nekk nii dafa mel ni sax ñoom sob sik nañ parce que suñ ndaw yi léegi sol yi mag ñi amoon daan ko sol ci góor ak jigéen ndaw lu ko sol léegi dañ lay wax ne yow danga nga te fekk ña lay wax ne da nga tardé ñoom ñoo tardé xaqiqatan yàlla bind la ci bind bu rafet bii nga gën ci lépp lu yàlla bind lu dul yow amul néeg bu mu fanaan lu dul yow amul mbubb mu mu sol lu dul yow bu sedd ñëwee ci biti lay ne yow nag yàlla bind la nga am loo sol am néeg boo dëkk am moto booy war am am am am yàlla ne nag lii teraanga la pour yow dama bëgg sa jëmm ji nga xormaal ko wa ruba rajulin laabisin siyaaban jamilatan wa yaxruju maana annahu jismuhu kulluha fiqaari la siyama nisa bëri na ndaw loo gis tey mu ngi solo ba naay génn fekk yaramam yépp ngi ci biti rawatina jigéen ñi ana karama ana teranga bi la yalla jox kon wess bi kon dafa melni ni bi ñom ñu ngi sob si parce que jakalant nañ ci suñ ndaw yi lool yépp dara taxut ni def ko lu moy ñu fexé ndaw yi bay diina ji kon luñu war ñun ñun ndaw yi lan moo ñu war ak ñun ñi nga xam ne ñoo responsabilité ndaw yi wa nahnu yajibu alayna an nuxaaribahum bi nafsi silah kon li ñu war mooy ñu xeex ak ñoom ci kem ñoom niñ xeexee ak ñun fexe ba yàq jikkoy ndaw yi gëmloo leen seen bopp ba fi mu nekk nii ko ci xam ne sax yaa ngi wax pour sa papa jëndal la yére su ko defee duñ mën a jëriñ diine ji duñ mën a jëriñ réew mi su ko defee ñun dañuy nekk ci gannaaw rek waxtu wu nekk su ko defee ñoom ñu nekk ci kanam rek ñun ñu topp leen daay man loolu ndaw yi war nañ ci bàyyi xel bu baax kon nag an nusliha sababana li yuqaabiluhum wa yuxaaribuhum kon ñun ndaw ñi war nañoo seetaat suñ bopp defaraat jikko yi pour mën a jàkkaarloog wess bi ñi nga xamne dara du seen fikra lu moy ñu indil ñu jikko yu bon yañ am yàqal ñu suñ jikko yu bax yiñ am ya ayuha sabab والشابات اقتضوا رسول الأمين الملك العدل البطل الذي فجأ جنس البصرية برفع الإنسانية yéen ndaw yu góor yi ak yéen ndaw yu jigéen yi roy leen ci ki yàlla yónn ci ñun nga xam ne dafa uur buur la bu màndu jàmbaar la joo xam ne moo ñëw xamal nit li tax muy nit insaniyatu bi doomu aadama am dëgg dëgg dëgg yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ko indi kon yéen ndaw ñi roy leen ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ngir lan insaniyati bi nga xam ne mooy nite gi yonent bi jox doomu aadama nite googu nga roy yonent bi pour nite googu nekk ci yow lu tax isdaa bi salaamin ila salaam mata jaa bi diinil islaam dafa oote ci jàmm yóbbu nit ñi ci jàmm ndax diina jim indi sax jàmm la tey yàqu-yàqu ndaw yi tax na man ta am fen parce que fimne yow ñimi yow sax guddii nga genn yore sax bu rafet parce que ndaw yaqku nañ yaq go xamne ne koy def rek yow legi nga ñak sa bakkan ngir yaqku ndaw yi te jàmm rek la diina ji indi te sax diinu fitra la diina ji diinu fitra la fitratu ci la yalla bind kep kum bind lan ci diina lislaam ci njub ci baax ci rafet jikko kullu mawludin yuludu ala fitra kon diina fitra la ku judd rek yaa ngi judd ci njub yaa ngi judd ci baax yaa ngi judd ci diina yaa ngi judd ci yàlla fa inna abawaahu yu majjisaanihi aw yu naziraanihi aw yu awidaanihi su ko defee nag way juróom moo koy orienté moo lay orienté ciiñ la soppi la def la juus wala mu def la nasaraan wala mu def la majuus su fekkee nag way juru baax la mu teg la ci fi nga xam ne foofu la lay la bindoon nga xam ne foofu rek ngay nekk feeg ba ngay dajeeg sa borom yow danga jëriñ sa bopp jëriñ sa diina jëriñ sa réew fa nii an la xayri ummati uxrijat linnaas ñu ngi ndokkeel xeet wi nga xamné moy xeet bi gën ci xeet yi muy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné yàlla néna mbolém xeet yi mo ci gën